Salam chers internautes yéen a ngi si Guédiawaye donc tey dans l'émission, émission xoole artiste ak Mbaye Prési tey ñu ngi fii cité Djily Mbaye c'est un artiste boo xam ne big artiste boo xam mu ngi événement bu big événement boo événement bu annuel qui va regrouper toute la crème du hip hop galsen donc ñu ngi ici ak notre artiste Tay biñu accueillir fini au niveau Galem muy Nitdoff Killer salam salaamaaleykum. ak salaam bro da Mbaye maa lay ziar yo dalal jàmm di big up waa Guédiawaye info ak euh, mbokku internet yi ñuy saan ñëpp maa ngi big up maa ngi ziar ñëpp. waaw tey Killa sama premier kii mooy bon mën nga ñu wax en résumé kan mooy Killa pour ñi nga xam ne ser internet yi la yi la nandul dëgg dëgg dëgg. yeah right Killa nit dof <laughs> benn gaynde bu dëkk Louga bu juddoo Louga màggee Louga yaroo Louga duggu si hip hop dans les années 96. 97 concrètement donc euh, nous avons ci groupe de BMJ BMG de Louga donc bu defee un de ganam bi foofu yëpp euh, bokkoon aussi si euh, ay concours au Sénégal avons si yenn concours qui a fait noonu nous ci yenn la région ba dans les années 99 après le groupe Itas tas dem Paris. Paris avons fa ba 2004 mu ñëw fii xool si terrain bi xoolaat hip hop bi affaire bi gën ko de mu Euh, décidé job premier album donc yàlla def mu croisé benn gain tudd Jules Saint Prot mu coproduire sama premier album yàlla def ñu présenté ñu benn gain bu tudd Mao Mao Sidibé ñu koy woowee Mao Prot donc moom moo job sama premier album deuxième troisième ba pare participé ci quatre cinquième bi yàlla def ne bon depuis boobu la sama carrière commencé ñu commencé ma xam ci turu Nit Doff ci sama premier album en 2007 beneen deuxième album bi génn en 2009 2007 mi deuxième begin en 2009 mu ngi tuddoon hip hop du troisième begin en 2013 mu ngi tudd RDDR Dragon du Tchegirai. quatrième cinquième begin en 2017 moo de Roi d'Afrique donc euh, nous Doff mi ngi label de Guns Out Click lgd du Squad donc ci gàttal ak ci tënk kooku mooy Nit Doff waaw Nit Doff gis nañ ne cheminé nga au niveau du hip hop Galsen teg ay affaire teg gën zaaw teg sa label teg lépp ak album yi nga génn yëpp en plus aussi nga commencé di def benn événement boo xam ne c'est annuel d'où est venu l'idée bi nga xam ne mooy teg euh, show of the year waaw idée bi moom mi ngi dikk déjà ci samay voyage yi ma doon def réellement daan dem ci concert yi gën a mag a mag Bercy yi gën a mag artistes yi américains yi ku ñëw dama daan seetaan yi daf ma doon émerveillé quoi parce man dama bëgg seen man daan dem ci seen yi di aussi seen salle seen stade de France yi wala mu nekk Bercy nu muy feese

ñooñu war na mën am fii quoi ñooñu gënuñu ñu fii am nañ espace bi am nañ demande bi donc waraluñu ra ñu ragalu jël euh, risque bi quoi donc noonu lañ jëlee décision def Ibamar wutal ko promo et depuis yàlla di si def surtout affaire bi dem ba jël forme quoi. ok quand on voit show of the year xam nañ ne Hip Hop Galsen bi ñëpp koy préparé donc man lu ma lay laaj mooy lan mooy spécifité bi ak lu tax mu spécial au niveau de calendrier Hip Hop Galsen. parce que déjà la popularité avec la réussite spectacle son et lumière c'est une grande promo derrière c'est un gros événement pour pratiquement moi et puis c'est des invités de qualité on essaie de faire participer le maximum de monde possible il y a les anciens il y a les gars de ma génération il y a la nouvelle génération et puis voilà, c'est ce qui euh, c'est ce qui rend la soirée spéciale en fait, parce que tu retrouves pratiquement tous les hip-hop garçons. Donc comprendre que bu weesoo nit dof bi dernier scène début ou fin tu as l'impression que tu da voyager dans le temps dans le présent tu vois il y a des anciens qui vont venir chanter ay ils vont xam son adolescence et tout ça et il y a des gars qui xamante si nii euh, tu as public du de de sur scène donc c'est ce qui rend euh, le truc euh, parce qu'on n'a pas trop de Haïtiens ici au Sénégal donc si Amé Ben mel c'est vrai que ça va intéresser beaucoup de gens donc le montage moi, moi, am mu am spécificité Wow! on sait que So of the Years demande beaucoup de moyens ak liggéey bu tar tar tar ak staff bu dëgër donc partant de là donc nan organisez organiser wu ak lan difficulté par rapport à l'organisation de cette big événement. On là waaw difficulté toujours comme nous affaire ça demande des grands moyens il faut que tu tu fasses une grande communication il faut que tu fasses venir une logistique qui coûte des millions il faut que aussi euh, tout ce qui tourne autour du chauve d'ailleurs c'est un gros budget tu comprends donc on est obligé de de courir à fond pour un budget boobu noonu d'autant plus que amuñu benn aide buy jóge feneen du état du sponsor du dara tu vois donc lépp ñun la ak public bi ak jaayante bi ñu koy jaayante pour teg ko donc tuuti la boo xam ne commencé nañ ko mu dem ba dépassé ñu mënatuñ ci dellu ginnaaw donc dañ ci teg suñu bakkan pour mu nekk mais c'est vrai que ça coûte très cher et euh, c'est extrêmement euh, compliqué à organiser mais comme lu ñu wax rek boo wootee si euh, benn affaire nit ñi fekk si la si day mujjee nekk ça quoi donc nous on sait que nous avons ngi toll ci phase de xamante si nous suñu un peu plus peut-être que nous avons fini quoi pour le moment nous avons fois financièrement revenu préventif pratiquement ça coûte pas cher donc du coup li nga si am si moyens ça sert juste à recouvrir après Il y a des frais pour recouvrir les sax mais bon la mission nous avons fait. sas et puis nous ñu fait avec grand plaisir après billet, bi nous le banner, lay mujjee doon quoi.

donc euh, gap et puis nous on a des exclusivités on est en train de travailler ici, benn scène boo xamante aussi tout le monde sait lui en matière de spectacle de surprise de feux d'artifice de ay les lay ni les on est en train de travailler sur ça et nous euh, ngi liggéey si conducteur boo xamante aussi on veut vraiment jàpp nit ñi ci à affaire pendant plus de deux heures ak ñun ñuy bouger par rapport à notre premier album que notre dernier album et exclure exclu les et tout ça vraiment on est en train de travailler sur un spectacle les gens qui vont venir viennent passer un bon moment et que les invités qui, seront là-bas, les surprises qui seront là-bas aussi, ça va plaire au public, c'est sûr. Waouh, mën diap objectif de l'édition euh, 2018 objectif bi nga objectif faire mieux que l'année dernière l'année dernière c'était extraordinaire pas contents, mais qui n'avance pas recul. on a toujours envie de faire plus. Donc on attend plus de monde, on attend plus de perfection au niveau de la scène, plus de perfection au niveau de la technique.

après il y a des invités qui sont euh, c'est des invités surprises il xam ne yi viennent d'autres sama conducteur mais disons pour ne pas guddal wala pour ne pas citer Ben, bàyyi Ben, on va dire que toute la crème sera sera là-bas donc euh, ci gâteau quoi. <laughs> waaw Inshallah. on sait que soo obligieuse kenn mënu ko wax te waxuñu aussi l'apport des Lougatois donc yow euh, ñoom ñu ngi préparer événement bi ak nan lañ koy préparer waaw ñu ngi koy beaucoup bu baax comme d'habitude ñoom dañuy ñëw déplacé wu sama fan si nekk football, àll ji diwaan squat dañuy déplacer wu jël seen i bus ñëw aussi à chaque fois may def show off d'ailleurs ren aussi ñu ngi def la même chose ñu ngi mobiliser wu ñu ngi jaay seen prévente et que maa leen show loof di leen big up di leen aussi ñu gagner mobiliser wu parce que aussi bokk nañ ci sama ndëgër laay waa Louga donc fuma ma dem ñu fekk ma fa du Dakar c'est donc euh, beaucoup na ci li gën a tax aussi samay show di réussir moi amener ben ben public derrière moi qui m'est fidèle depuis plus de dix ans fu mu leen oo ñu ñëw fu mu ma dégg ñëw dooleel ma que ça soit mu nekk Thiès Diourbel fu nekk même bu doon benn kaar sax dinañ ñëw quoi donc plus que show de yooyu ñoom bokk nañ ci ñi koy taaral donc maa leen wax ñu gën a mobiliser wu maa leen di show love ci seen support depuis le début di leen masawu aussi xam nga en tout cas di leen gën a ñaax aussi que bii nii ñu def plus que lu ñu daan def quoi. donc nous avons rendez-vous le 15 lay doon stade Iba Diop euh, feesal ko dell ak waa pour show of the years édition 2018 ak ay surprise du mag l'émission tire à sa fin donc lan ngay il ak seet si pour la donc euh, pour préparation show of the years Oui, maa ngi le 15 samedi donc na gars yëpp ñëw gars yi teel a jël seen prévente maintenant parce day xat na gars yi teel a ñëw surtout ñu ñu passé benn moment bu formidable comme ni ñu koy defee donc nañ ñëw béggee artistes yëpp bu concert u Nit Dof concert u rap seen bi yëpp la képp ku fa yéeg ñu dooleel la show la love ba déwén nga am envie ñëwaat donc loolu laay ñaan public bi surtout teel ñëw bi réussite concert bi mi ngi dépendre ci teel a ñëw public bi donc ñoo leen di ñaan ñoom ñëpp ñu teel a ñëw di big up euh, Guédiawaye info di leen ñaanal aussi yokkute si liggéey bi affaire yi gën a sound baan kontaan naa si ñëw bi ngeen ñëw déplacement bi maa leen di ñaanal liggéey bi mu gën a mu gën a yaatu yàlla defal leen ay ngëneel ba affaire yi àgg fi ngeen ko bëgg ko incha allah rabbi Eh, merci Killa donc à la prochaine donc c' était Nit Doff xoole artiste ak Mbaye Prési sur Guédiawaye TV à Guédiawaye info point com donc di leen jox dig daje ba beneen yoon Nit Doff wu donne rendez-vous le 15 stade Iba Mar Diop teel a ñëw teel a dugg am spectacle bu amul fenn di leen wax dig daje ba beneen yoon mbay Prési peace